Je teew di leen remercier di remercier internautes yi li am Sénégal dafa toll ci situation bu lëj comme dafa lëj nag yoon la ñi nga xamante ni ñooy acteurs majeurs yi ñu daje waxtaan ay acteurs majeurs bu ñu taxawee ci espace politique société civile parti politique etc. cetera ay intérêt day ay aspirations maintenant au-delà de ces intérêts et aspirations des différents partis dafa am intérêt ak aspirations bu Sénégal aspiration ak intérêt bu Sénégal boobu nekk ci enjeu boo xamante ni actuellement sécurité daf ci bokk pétrole bokk ci li ñu wër bokk ci àddina bi bokk ci moo tax tey fi ñu toll nii élection pour ñu organiser ko si situation yi du yomb ñu bëri nag dañ ko dese comprendre donc yoon la ñu toog ñu waxtaan ci biir waxtaan bi nii am naa yaakaar ne issue dina ci génn Sénégal dal ñu libérer suñu réew surtout waaw man dama commencé woon ay waxtaan

donc si vous conseil constitutionnel le conseil constitutionnel virus. virusé C'est ce nous waral tey nous war a ñu ngir xol fan la rew mi jëm am naa am solo la en tant que soldat man ëllëgu Sénégal xaw naa si au delà de njiitu réew mi au delà de ñi ko bëgg wut au delà de sénégalais yi liñ bëgg dafa am ay jeu, yoo xamante dafa am doole trop. te enjeu yooyu nag moo taxaw te moo tax ma wax sànq ne ñi ko maîtriser bëriwuñu ñu bëri ñi ngi xët-xët yi di topp ñoom seen xol ak seen intérêt mais taxawuñu ci li nga xamante ni musiba la bu mu juma la surtout réew moo xamante ni pétrole am na fi gaz am fii te ñu gis réew mu mës loolu mës a feeñ rek ay musiba fekk si nañ la donc ñu war a tey tuuti def nak rek xëy na dinañ am solution pour génn ci situation